أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن mbokk yi tedd yi yéen a ngi ànd ak seen mbokk Mokhtar jum ñu gën koo xam ci Ndiaga jum di taalibi Serigne Ndiaga Sylla imaam mi ngi leen di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mooy di leen ñaanal jàmm yàlla ak yërmandeem ak barkeem yàlla na sotteeku ci seen kaw. ni ñu baaxoo di ànd ak yéen ci xasida gi wa kaana xaqan alayna nasrul muminin tey mooy sunu juróom-ñeenteelu jataay ñu ngi ñaan nag taw feexu sëriñ bi ñu ngi leen ndokkeel baax ci weer wi ñu nekk muy weeru gàmm di weer wi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gane àdduna ñu dellu di ñaanal baax Cheikh Mouhamadul Muntaqa sunu boroom gën ko fay yàggal lool te mu ànd ak wér. ñu ànd ak jullit yépp rek ba li mu naa la liggéey sëriñ bi ñu ànd ko rawatina mbokk taalibe yi téere bii di wakkaan xaqan alay naa nasrul muminin jëloon nañ ba euh, wakkaan xaqan njëkk jeex wakkaan xaqan gu gi ñu yemoon ci ala alay naa am ci laam ga te ñu war a jël yaa gi gi moo nekk yaa man lahul xalqu kama lumuur yaa mughniyan aghnaytani anid damir mu ne yaa man lahu yow mi nga xamante ne yaa moom alxalqu mbindeef yi yàlla yow mi nga xam ne yow la ñeel mbindeef yi mbindeef yaay yaa moom kama lahul umuur wala boog kama lahul lumuur comme ni nga xam ne noonu nga moomee seeni mbir kon li ñuy def yàlla sunu borom moo ko moom sunuy jug sunuy toog sunuy julli suñuy woor suñuy natt azaka suñ mboolem suñuy yëngatu rek suñu borom moom moo ko moom buñ ko ko moomalee nag ginnaaw bu mu ko moom ba pare ñu yëg ni moo ko moom loolu day daal di nekk ak jaamu yàlla suñu diggante moom su ko defee muy suñu martaba di gën a kawe mu ñu gën a nangul sëriñ bi ne yow yàlla mi nga xam ne yaa moom mbindeef yi kon yëg ñu yëg ne moonu moom tamit day am solo mooy keneen moomu ñu ko yàlla loolu dañ ko yëgaale ci suñuy doxalin loolu tamit buñ ko defee dañuy daal delloo njukkal sëriñ bi yëg na yàlla ñu moom kon ñu ne bu fësee ko womatu nag ca lam bëgg sëriñ bi nee na yàlla yow mi nga xam ne yaay boroom mbindeef yi comme ni nga xam ne yaa ni nga moomee seeni mbir noonu nga moomee mbir yi yaa moo ko ni yan yow mi nga xam ne aji doyloo nga ba buñ ko defulutoon dara du tee mu doon yàlla. bu ñëpp maase woon di mooy yàlla walla yaasu billah du tee yàlla moom di tee day màgg di am teraanga di tedd ax nayte nii yaa ma doy lool yaa ma doy lool man sëriñ bi yow mi nga xam ne yaay aji doyloo yaa yaa yow ko doy nga yow sunu borom doyloo nga sa bopp yaa ma doy lool anit damir walis may wëlbatiku di di laaj wala may def leneen ad-damir arab bu ko waxee mooy delluwaay mooy delluwaay comme tey bone nee euh, sami'tuhu dégg naa ko ko kogoogu daa am ci lu mu dellu daa am ci lu mu lu mu dellu bu doon ci tubaab la nga ne pronom personnel pronom personnel daa am ci lu mu lu mu ku mu remplacer damir mooy loolu mooy dafa am lu mu wuutu moo tax aday aghnaytani doy loolool nga ma ani damir walis may may jeng walis may may wëlbatiku di laaj leneen wala may def leneen loolu la ma bëgg la nga bëgg ci man rek laay def kon loolu mi ngi ciy soññ mu teg ci ne ko naajay tukkal ci enlay naagi jël nañ yaa gi naagee nekk noonu naajay yow moo am siraaji yaa wali xadayta duna shakkin xaaji yaa mu ne naajay tukka naajay tukka maa ngi deyaaleeg yow yow sama borom maa ngi deyaaleeg yow diyaale nag buñ ko waxee mooy ki ngay diyaale day wax ngay wax dina ko wax inni uxaatibuka wala mu ne ko inni uxaatibu wala mu ne naajaaka loolu da koy faral di wax ci bayitam yi eh, kon li muy diyaale boromam bari na fu koy gaarale ci xasida yi naajaytuka diyaale na ak yow al yow ma tey jii waa am si ak démb démb tit maa ngi diyaale ak yow raajiyaa may aji yaakaar nag bi may déyaaleeg yow nag maa ngi nekk aji yaakaar te ak démb yépp maa ngi nekk aji aji yaakaar maa ngi déyaaleeg yow ba pare nekk aji aji yaakaar maa ngi déyaaleeg yow nekk aji aji yaakaar wali qadayta duna shakkin xaajiya <clears throat> wali wa qadayta nga faj nga fajal ma xaajiya sama aajo yi lii ma kon da ngay a tekki xadayta nga faj nga faj lii ñeel ma xaaj yaa sama aajo duna shakkin ci lu dul sikk sàkk ci loo xam ne amu ci tut kon diyaale naag borom bi tey jii ak démb di aji yaakaar nag ndax li may diyaale moom yëpp maa ngi ci sama yaakaar mu ngi dolleeku ndax démb de fajaloon na ma sama aaju te amu ci benn dut amu ci benn sikk sàkk xaale naa alif moo ko xëcc alif gi mu ne awsil li ummati nabi ahmada musalliyan alayhi fi man xumida mu ne awsil yàlla nga jokkale yàlla nga àggale li ummati nabi ñeel xeetu yonantu bi yàlla nga àggale ci xeetu yonantu bi ahmada te turam mooy ahmad musalliyan te ngay aji julli da ngay aji julli yàlla ngay aji dolli xéewal alayhi ci moom yonantu bi sallallahu alayhi fii man xumida ak ca ña nga xam ne santees na leen yàlla sunu borom yàlla nga àggale ci xeetu yonantu bi te yonantu bi moo tudd Ahmad te yàlla nga dolli xéewal ci moom ak mbooleem ñi nga xam ne ñuy sant lañ ñuy sant nag mooy ñi nga xam dañoo tegu ca la yonantu bi bëgg ñooñu lañu sant ndax góor góorlu nañ ba yar seeni cër yar seen bopp yar seen bànneex ba dëppale ko bëgg-bëggi yonantu bi sallallahu alayhi ci doxalin ci defin ci bëgg-bëgg kon ñooñu tamit yàlla nga dolli xéwal ci ñoom li muy àggale nag mu wax ko ci bayitu euh, alay naa bu noppee nasru moo ci topp wa kaana xaqan alay naa nasru mu ñëw ci nuun gi kon nasru nuun gi mu ne nasran azizan yashmalul kibaara maa sigaari rudulahum baaraa yàlla nga àggale ci xeetu yonent bi li muy àggale ci xeetu yonent bi mooy lan mu ne ko nasran ndimbal azizan gu tedd gu mag yàlla nga àggale ci xeet yonent bi ndimbal lu màgg a magga a boo xam ne yashmalul kibaara day ëmbaale mag ñi maa sixaari ak ndaw ñi mag ñi ndaw ñi yëpp dañ ci gis seen bopp rudulahum nga tàggatal leen man baara képp kuy léewtoog ñoom képp ku jàkkaarloog ñoom ne day defanteeg ñoom rek yàlla nga nga leen ko tàggatal yàlla nga leen ko tàggatal nga xam ne xasida gi boo koy durus képp ku lay Eh, bëgg a cokkaas wala di bëgg laa défier xamal ne eh, sëriñ bi eh, sunu borom nangul na ko ci xasida gi su boobaa kon da day daal di tàggatal kooku da daal di nooyalal kooku ba kooku day mujj nekk sa sa surga boo muytul sax te mu ngi la doon jéem a jaay sañ-sañ wala man-man walla autorité waaye xasida gi ngay durus di ko faral di mooy waral sunu borom dina dem ba nooyalal la tàggatal la kooku. ba kooku far di la nangul kon sirru xasida gi foo nekk rek bëgg nit ñi respecté la bëgg nit ñi bëgg la bëgg ngay am ndimbal foo toll rek bëgg nga yëg ak yokkute foo toll rek dee durus xasida gi ci gàttal bi ñuy daanelee tey ci xasida ci euh, jataay bi ci juróom-ñeenteelu jataay bi mu ne ci euh, nasru xam nga saat moo ci topp nuun ginnaaw nuun saata ci topp mu ne sunni alxadisa walfurua kalkitaab an alladina mtanahu min almataab mu ne sun yàlla nga aar yàlla nga ñoŋal yow sunu borom alxadis mooy wax yonent bi yàlla nga ko ñoŋal walfurua ak bànqaas yi xam-xam yi nga xam ne ñu ngi génnee ci xadis kalkitaab ni ki téere bi téere bii di alquran tamit yàlla nga ko ñoŋal yàlla nga ko sàmm an allazina ca ña nga xamante imtanaon tere woo nañu minal mataab ci dellu si tere woo nañu ci tuub tere woo nañu seen bopp ñi ngi ci ndëngate ñi ngi ci ay caaxaan ak ay yàqte te nangu ñoo dellu si nangu ñoo tuub nangu ñoo bàyyi lañuy def ñoo ñooñu noonu yàlla nga leen eh, yàlla nga aar xadis ak alquran ba ñoom duñ ci mën dara ndax comme ay yàqkat lañ rek ay defkatu njaaxum lañ seen njaaxum yooyu seen yàq yooyu yàlla bu man dara ci xadis ak alquran ak bànqaas yi bàyyeekoo ci yooyu bànqaas yooyu bàyyeekoo ci yooyu nag mooy fiqa euh, usulul fiqa euh, tasawuf xam-xam mboolem xam-xam yi nga xam ne ñu ngi koy jëfee ci wàllu ibaadaat ci wàllu jaamu yàlla nga xam daa bàyyeekoo ci téere bi yàlla sunu borom bi ak xadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla bu yàqkat yooyu man ci dara ba di ci yàq dara ñu dégg suñu déen nañ ko war a déggee di ko jëfee nañ ko war a jëfee kon loolu moom mooy euh, foofu la juróom-ñeenteelu jataay bi yam yàlla na yàlla may dégg ak topp mbokk yi seen mbokk njaga jum lu ci jub nga xam ne si yàlla sunu borom la bàyyeekoo luñ ci juum wala ñu dese ko matal ngeen xam ne gàtt xam-xam la ak ñàkk fasaaxa in uridu illa al islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu